añ bi mu toog bi mu jógee Tiwaawan mu ne ma dal <laughs> di xaqataay man maa ngi maa ngi am dëj nekk ci naqar muy xaqataay mu ne ma ay dara ma ne ko ah labbayka mu ne ma billaay yàlla moo mën ma ne ko lu tax mu ne ma billaay wal kitaabi fii ba bés penc di taxaw ku dugg bàmmeel ñu laaj la kuy Abdou Aziz xamoo ko duñ tekki sa bagage fekk ñëwut billahi alladi laa ilaha illa huwa alxayyul qayyum la ma ko mu ne ma fii ba bi ab alaaji Abdu duggee bàmmeel ba yowmal xiyaam ku dugg bàmmeel ñu laaj la kuy Abdou Aziz xamoo ko yàlla du tekki say bagage fekk Abdou Aziz ñëwul dañu ne ma du ma du ma raw billahi la ma du ma raw ndax lu ma defati réew mi alaaji Abdu nekkul sëñ Babacar newu fa lu ma fay def ci la ma nettali mu ne ma sama ngan nga ci Cheikh Mbacke Cheikh sëñ Cheikh sëñ Cheikh Mbacke gaynde Fatma la may fàttali mu ne ma dama dem gane ji ko Touba Taïf mu ne ma demee fekk kër gaa ngi fees del nee na mu ne ma ma toog rek naa xam nga daawul wax noonu muy def nii rek mu ne mu ngi xool rek nee na ma del sama xasida bind ko xasida bu saf sap nee na mu yër ko yër dugal ci poosam waxul ba tey waxul nee ma ne ah lii de échec la ci taalibe ci sama xol de bind xasida bu ñu toll mu yër ko ba noppi tontuwut dana ma tontu de dal di ne ko mbàkke mu ne ko ah mu ne ko dama lii dama la jox xasida de te nga yër ko ba noppi te tontu woo ma nee na mu ne ko mm-hmm. mu ne ko ma bëggoon nag nga wax ak man ndax Tiwaawan laa jóge sëriñ Babacar Si mooy sama sëriñ ma sopp la lool ndax sa xam-xam ak sa fit ak sa doomu soxna bi nga nekk ndax sëriñ Cheikh Tidiane Si laa dégg mu ne ñetti ci réew mi xamuñ seen xam-xam seen wilaaye lañ xam sëriñ Fàllu Mbàkke mu ne xamuñ xam-xamam wilaayaam lañ xam sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma muy yow wilaayaam lañ xam waaye xamuñ xam-xamam Thierno Saïdou Nourou Tall wilaayaam lañ xam waaye xamuñ xam-xamam ma ñëw nag di seet foo toll ci xam-xam tontu ma xanaa bu dee dama doyee di ba toll ni xorondom màggoo ba yem ni Souleymane xoolal fi ko jaar su dee man Malick Guèye dama doyee di ba toll ni xorondom xanaa yow màggoo ba toll ni Souleymane te Souleymane yonent la nekk ca kaw tapis rouge am di naaw xorondam wax ak moom ci suuf mu tontu ko lu tee nga bañ maa tontu mu ne ko ëskay géy mu nga ci suratu nam li ne na daal dina nekk ci sama loxo dugg ak man ci biir néeg bi ne ma géy xam nga lu tax du ma wax ma ne ko déedéet mu ne ma li def ba noppi jarta wax ndax yàlla gis na ko mu ne li nga defagul jaragu la wax ndax xamoo ndax ni nga ko def wala déet seetal li mu ne ko kon lu may wax def ba noppi mu ne yàlla gis na ko jaratul wax mu ne li nga defagul xamoo ndax dina sotti wala du sotti kon jarul wax bàyyil ba ba muy sotti mu ne tax ma ne pat mu ne ko lu tax lu waay wax nga ne yi ko bañ ko ma yóbbu mu ne ndax ku nekk ci sama napp yi di fen danaa xam ne da ngay fen soo noppee mën a cee yii mottalee ci sama xol ne moo mën a fen mu ne su dee da ngay wax dëggit dinaa ko xam mu ne soo noppee mu ne ceey mottalee ko ne diggati naa dëgg ci sama xol mu ne ceey yooyu ne kenn du ko mën a firi ku dut man dooma yóbbu mu ne ko géy lii rek a tax du wax mu ne keroog la fasanteeg moom kóllëre ne ko saa yoo ñëwatee Touba ñu dugg ci biir néeg waxtaan maag yow loolu Sage Malick Guèye am na ko ci seen Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne tey kenn rawu ko ci réew mi ndax sëriñ Cheikh a ko wax ma dégg te sëriñ Cheikh moom que ne kenn rawu la kenn rawu la ndax moom kenn rawu ko ki ne ki kenn rawu nag comme ne kenn rawu ko kooku kenn rawu ko ndax Serigne Cheikh ko wax ma dégg kon nag nii nii rek lañ ànde woon Oustaz Malick ku yàlla teral la woon bi jaak xam na li may wax doomam Abdou Aziz xam na li may wax galas setam ba xam na li may wax ndax ñoom laa fa daan fekk boobu Abdou Aziz a nga ca libi di jàng doomam Abdou Aziz mu nga woon ci libi di jàng kafane woon mooy jaag ak galas ñoom ñoo ëpp luñ daan fréquenté góor gi surtout jaag jaag li mu xam ci oustaz Malick doom yi mu jur sax ko ndax moo daan nekk ak moom quotidiennement guddi bëccëg suba ngoon waaw nit ku yéeme oustaz Malick Guèye waaye daal li ma leen mën a wax mooy nañ fonk mag ñi mag moo ci dégg fonkal teralal ñi génn àddina bu leen tayal ni ma leen ñaanee woon ngeen di ziyaare ji Thierno Yaxya lii man lu ngeen fi dégg ba ci oustaz Malick Guèye su ngeen demee xalxuus mu nga fa fa lañ ko denc ba mu ma waxee loolu nag foofu laay jeexale mu ne ma ay dara du ma raw mu ne ko loolu ne ma fa loo fay def loo fay def ma ne ko ah loolu de laaj naa la ko mu ne man daal du ma raw ñeen fukki fanu alaaji Abdul Aziz ci lañ koy denc ca xalxuus bés boobu la Maodo Sylla am ak Alhaji Basirou Diagne ci la doon jaale si boobu yal na yàlla boole yërëm leen lébu yi boobu lañ doon jaale ji Tiwaawan bi ñuy joxe seen njaal ñu ngi denc oustaz Malick ca xalxuus xoolal diwaan bi mu taalif maa ngi ko yor ci kër gi gis ngeen ko gis nga diwaanam bi mu ngi fii ci kër gi maa ngi ko yor incha allah naa ko photocopie may la ko. dinaa ko photocopie may la photocopie bi dégg nga ndax sëtama yow sëtam nga dinaa la ko yéene te yéene naa la ko taalif bu doy waar diwaan bu doy waar lu ne la def ci téere boobu changement lu ne lu ne lu ne la bind ci téere boobu bu lay nettali fi mu jaar ak mag ñi yooyu xaju fi alaaji maajoor siisi ñëpp mag ñooñu bu may nettali fi mu jaar ak ñoom da ngay xam ne Oustaz Malick du nit mu ne ma te booba kat xam na shérif lu may wër man ko dee mu ne ma ku ñuy fontoo rek ni doo fi sampoo ma dem samp la mu ne ma boobu yàlla may na ma samp wallaay mu ne tileere ma gis ñuy këll këllee nit rek ma dem samp ko ñibbisi waat toog ni ma sedd ku koy sempi ma ne ko waaw lu tax kenn mu ne ma man damaa soxlaa samp man dama soxla dara mu ne ma man soxlawu ma dara tus soxlawu ma ko waaye kuñ fii kal këllee ma samp la rek waaw nettali ma man ñi nga xam ne ñëpp moo leen samp te am na ñu ci ne moot duñ ko tudd loolu may métti nag man waaye am na koo xam ne bu la defalee teraanga tudd ko sax au moins te ñooñu dama leen xam ci réew mi te duñ wax ba tudd Oustaz Malick Guèye te billaahi moo leen samp te du waxantu moo ma ko wax te dama ko dama ko xam ndax ñooñu dama yëg biñ leen di xeex te am na ñoo xam ne ay sëriñ ñoo leen doon xeex. oustaz Malick ne léeg-léeg am na ci boo xam diw ma ne ko am ah, mu ne ma weer ak fukki fan laa fa def pour samp ko mu ne ba yoon ci yàlla Isa ne jamet ci sama kanam sëñ kër Si ne jameet ci sama kanam ne ma Malick doy na li nga bëgg def nañ ko moom ñooñu ñun daan jaxasoog ñoom sax da naan kii oustaz Malick day wax rek waaw wax rek waaw pour wan la am na bés ñu may ma benn soxna biñ ma mayee soxna si kaw lax la woon. bër set rek xaw ma lu ma dal xaw ma dañ ma kortu xaw ma lu xew xamatuma fu ma nekk ma taal sama oto jubal si Thiès sama kër nijaay colonel moom mu ngi Thiès ma jubal si Thiès ci camp ba camp de garde ñëw sama nijaay yóbbu ma infirmerie médecin bi xool ma yàlla na ko yàlla yërëm Abdou Ba Samb sama sama goro bii ci Sacré kër moom la tuddee doomam bu góor boobu Abdou xaritam la woon Abdou Ba Samb ñoo xool ma ne sama nijaay kii dara dalu ko te boobu sama yaram bi température bi ci nekk mënuma la ko ma jékki-jékki rek jaag dugg si laaj leen jaag ku gis jaag nga laaj ko jaag dugg si ci camp bi ne ma Oustaz Malick na ngeen indil ko shérif billaahi wal kitaab bi ma ñëw taxi bi gaare ci bunti kër gi mu ne boo ñëwuloon dee dee boo ñëwuloon rek dee waaye bés ni tey dootoo feebar ba yow man je touche du bois ana bois keroog laa gëj a feebar. billaahi wal keroog laa gëj a feebar ba fii ma toog di wax ak yow. ëpp na ans. te grâce à oustaz Malick Guèye. maa la ko wax. ay <laughs> dara boo ñëwee noonu dee dee. loolu ko waxoon. wallaay ma ñetti fan ci kër ga. fan bu njëkk bi laax lañ ma defaral. ñaareeli fan bi ngurbaan ñetteeli fan bi ceebu ginaar ku weddi laajal soxnaa mi ci kër ga ña fa nekk tey ñetti fan la ma téye ci biir kër boobu xaw ma xaw ma fu ma ne ba pare tegal ma ci wàcceel soxna si foofu laa téléphoné ne ko jéggal naa la may naa la sa baat man kay waxuma fase naa la mais <laughs> keroog laa ko gis-gis it <laughs> nit day am kilifa Eh, nit day am kilifa ah, nit day am kilifa te kooku ay mbokkam a ngi fii géej waaye soxna suus waaw ah, xam nañ li may wax parce que télévision la ñëpp a koy seetaan xam nañ li may wax du lu ñuy nëbb nit ñi di jàngee mooy li ma leen di wax ne nit day am kilifa yal na ko yàlla fay oustaz Malick kon ñu defar sëñ bi rek waaw xol yu sedd la rek maa ngi jéggalu waaw kon nga ñaan waaw wallaay xol bu sedd la rek <laughs> amin amin amin amin amin amin amin amin amin <laughs> wallaay dëgg la dëgg la wallaay wallaay boole ci ja jëlaale na ko xam nga ñun Serigne Alioune Guèye day maam ci ñun Serigne Alioune Guèye moomu di mbokk ci Serigne Ibrahima Guèye mi jur sama baay bi ñu tabaxee jumaay ndaan da ba pare ñu ñëw tàggu Serigne Babacar Sy ni ko dañoo defar jumaay ndaan de pare ñu bëgg nag imaam mu ni leen ah man day ba man dey xam naa ni xawma ku ngeen di jox seen jàkk waaye sëriñ Ibrahima Guèye day ku ko jiite ci tund woowee doomu julli mu jiite jumaa jooje fanweeri at door fee bàyyi ko dem barsàq waaye sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane ak yow mii yéen ñaar seen ñaari xol wóor na mu ne ñoo wokk fu leen yàlla bindee loolu moom leer na ma naññ tey waaw lii kay man maa la ko wax loolu leer na ma nañ bari na koo xam ni di ko jige jige ga di kiiraay ci yow soo amul sens doo ko jariñoo ñi la yàlla booleel yàlla nañ la jariñoo jëriñu ñu la dara mënuñu ko waaye sa jàkkaarloog ñoom képp soo waxul woon sax njëriñ la ci ñoom billaahi lasi laa ilaha illaa huwa gin naa ko ci Seexuna Tijaani mi nga xam ni alxaaji Abdul Asiis Si moo waaye sëriñ allahu akbar fasante na ma ak yow kóllëre duma ko fecc fekk may dugg ci biir suuf su ma duggee ci biir suuf it duma ko fecc fexeel ba teg ma ci sa loxol maam sa say Sayyiduna Muhammad man wóor na ma ni jëf wala wóor du ma nañ waaye wóor na ma ni bëgg naa nit yàlla yi toog naa ci pom bi fii ci alxaaji Abdul Aziz ma ne ko ba ma juddoo ba léegi mosuma jox loxo sama sama loxo nit rocc sama loxo rocc sama loxo am lu ma ko jàppal ci sama xol mësula am sëriñ Moustapha jëlee na ma fii yóbbu ma seen ma def fa juróom-ñaari at di liggéey ci daayiratul Moustarchidine di fa samp ay section la ko tàmbalee foofu ba kere ngay dem Cap di dem ba kere ngay dem ba euh, Kolda àll boobu yëpp ay nit di dagg di tuub di dugg ci diine l'islam keroog bi nga xamee ni Serigne Abdou ñëw na jóge Kolda jaar si fa ñëw kër Alaaji Bëje yi ñu taxawal daayira bi mag ñi tas ko ñu taxawal ko ñu tas ko mu ñëw fa ci kër Alaaji Bëje ñu ngi tëdd ci kaw lal bi ma toog sëñ Samba Ndiaye ngi toog Alaaji yi ngi toog maa ngi toog ak oustaz Babacar njaay ma ni ko si mu ne maa ma ni ko daayira bi taxawal nañ ko fii de ñetti yoon bu ci nekk mag ñi ko tas mu ne doxal leen seen daayiratul kiraan te ngeen bàyyi gone yi doxal seen daayiratul mustarsidin génn leen ci yëfi gone yi keroog lii la sëñ bi wax ba ñu demee ba ca ba ca ëllëg sa sëñ Samba Ndiaye ànd ak alaaji ba ji ñëw fekk ma xamaa ne ni ma yow def nga lu rëy ma ne ko lu ma def mu ne li nga wax ci kanam sëñ bi ma ne ko du dëgg mu ne ma ma ne ko kuy déggee nopp yàlla soo waxee ci moom kàddu gu dëgg moo la koy jëkk xam ma ne ko su ñu woon dëgg sa yoon bi ñu ne du dëgg kon sëriif yal na yàlla sàmm la li ngay liggéey ci tariixa bi di ko liggéey ci diini ji di ko liggéey ci nit ñi xam nga nit ñi dañoo gàtt xel ndax dañoo yaakaar ni nit ki tariixa mooy ëmb nit mais tariixa bi nga bi nga bi la yàlla jox li mu lay jox booba tariixa bi ñëwul booba tarixa bi ñëwul de bala yàlla boole rasulullahi boole nag seexuna tijaan yi nga war a jaari si ñoom ñëw ci jamono liggéeyal yàlla ci biir jaamam yi booba tarixa bi ñëwul ay dara yàlla na nga gudd fan ku ndax xaar yàlla na xaddi te kat dama lay waxal leen gis nga réseaux sociaux yii nit ñi di wax di lu nekk ñu di ko ci jëf ak di ko wax nit yàlla yi seen bopp seen bopp lañ koy def Seydil Hadji Malick nee na deru nit yàlla tooke la ku ca mat di nga dee dañoo toog ci benn kër am ko am benn kàddu bu mu wax Alaaji Abdou ni bërit jóg benn booy boo xam ne moo gën a nekk xale ci noonu ni waa di nga dee ren sa kër tas te di nga dem sa war billahi la si laa ilaha illa huwa waa jooju bi muy dee làmmiñam daa mi ni këñ di dagg di rot ba làmmiñ jeex mu door a faat moo tax ñu mel ni yéen yàllaa leen wax loo dee leen wax jaami nañ leen di déglu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sërif naa la sama bopp sërif denk naa la sama bopp man Maodo si moom a may salaatul faati moo ma ko may ca pomba dama daa wax gaa yi nii leen ñaar damay defee ni nit du ko def ñu ne amal leen sol lu tilim ak sol dàll wu tilim ak ñàkk yor xaalis waaye mag ñi nag léeg-léeg ñu yar nit léeg-léeg nga bëgg a ku ñu yar la man nii ñu ñu tuñ laa bokk <laughs> waaye nag caabi yaakaar naa dinaa ko gis <laughs>